donc c'est juste par rapport à la tournée du président à Matam yéen ñëpp gis ngeen ko par rapport ak réalisation c'est-à-dire euh, inauguration yu mu fa def ak travaux yu mu fa def yu mu fa lancé donc on a jugé nécessaire vraiment de tenir un point de presse pour lui remercier pour lui montrer notre satisfaction notre engagement à l'accompagner davantage dans cette mission noble qui est aujourd'hui matérialisée par les actes posés pour un Sénégal émergent donc maa ngi waxaat sax français en réalité <laughs> voilà donc pour acte yi mu pose yoo xamante ne def na ko dans le pays plus particulièrement mooy tournée bi mu def à maatam pour vraiment accompagner ko wan ne ko aussi nu sommes vraiment contents nous sommes vraiment en phase si lu muy def et lu mu fa def aussi euh, histoire la ça va rester dans l'histoire parce que président bu dem si benn département def fa cinq jours ça veut dire que pendant cinq jours le département de Matam est nekk na capitale Sénégal donc loolu je pense premier fois dans l'histoire te loolu du gaaw amaat donc ñu ngi ko ci remercier bu baax loolu bu jàllee aussi ñu ngi remercier l'honorable député Farba Ngom euh, vraiment ci taxawaayam ci tournée bi ñun ñëpp gis nañ mobilisation bi dans tout le département nu mu ko organiser en tant que coordonnateur départemental moyens yu mu ci def ak appui bu ñu bu mu appuyer jeunesse bi ba mun a feeñ surtout pendant cette tournée là parce que ñëpp gis nañu tey jeunesse républicaine bi était présent au devant de la chaîne pour accueillir et loolu yëpp bu amee c' est parce que am na ñoo xamante ni ñu ngi si ginnaaw en l'occurrence l'honorable député Farba Ngom qui a mis moyens qu'il faut pour que loolu mun a am bu loolu weesoo ñu ngi remercier tous les responsables politiques du département de Matam ñoo xamante ni jàpp nañ ci ba réussite bi am donc ñoom ñëpp aussi à travers leur coordonnateur départemental ñu ngi leen di remercier ñu ngi remercier le coordonnateur national qui a quand même fait quand même un long trajet euh, mu ñëw ba Matam pour vraiment ànd ak accueillir le président de la République loolu yëpp day wane engagement am détermination pour accompagner le président dans ses actions loolu bu weesoo ñun ñëpp gis nañu euh, Ousmane Sonko euh, si taxawaayam après tournée réussite di président gis nañ muy taxaw mu naan day def tournée dans le pays ñun nag ndaw département de Matam plus particulièrement la jeunesse républicaine du département de maatam ñu ngi koy euh, déclarer un persona non grata tout simplement parce que Ousmane Sonko tant que mu ngi am comportement bu mu am envers les gestions de la République envers le chef de l'État en tant que chef suprême des armées ñun dootuñu nangu muy ñëw Matam euh, suñu fief mu fay nekk naan dafay def politique loolu duñ ko mus nangu lool loolu maintenant nag bu taxawee taxu républicain responsable politique un vrai opposant boo xamante ne waxuma opposant pour opposer pour opposer wala di sos di fen non non un opposant li ma républicain loolu en tant que démocratie pays démocratique mun nañu nangul ko mu ñëw foofu mais tant que mu ngi jël bras de fer muy wax di n'importe quoi si régime bi si président de la république dootu ci ko nangul muy teg tànkam si biir maatam ñu loolu lañ bëggoon vraiment jàllale leen wax leen ko pour vraiment opinion bi xam ko voilà